Sénégal li fi am mooy un policier pour euh, cinq mille habitants alors que norme yi mooy un policier pour mille habitants ñun rek ngeen di gis ñu ñuy matraquer ñu ñuy gazer ñu ñuy buntu xatal ñu ñuy dóor ci marché yi di ñu tëj ay weer te ñu ñuy jàpp ay policiers lañu ñu ñuy dóor ay gendarme lañu waaye donte ñu ngi subir loolu ñun rek ngeen di dégg ñu naan du dëgg du yoon li fi am Sénégal mooy au lieu mu am un policier pour 1000 habitants ñu ngi am un policier pour 5000 habitants maanaam un policier sénégalais mu ngi def liggéeyu juróomi policier boo amee surcharge de de travail même yéen journalistes yi day yomb nga nerveux day yomb nga nerveux day yomb nga gaaw a naqari deret day yomb nga def naka su dul noonu. donc pour wane ne ñun dañoo jàpp ne takk der yi duñu suñuy noon ñun rek ngeen di dégg ñu koy wax ñu koy bind ba di ko distribuer sax ci commissariat yi benn bés jàpp nañ ñu 10 heures ba timis commissariat plateau ndax ndax dañ doon wër commissariat yi di joxe këyit ci këyit yooyu ñu boole ci ne du dëgg du yoon Sénégal mu am un policier pour 5000 habitants alors que un policier pour 1000 habitants moo fi am. donc ñun amuñu benn complexe ak gendarme ak policier ak douane ci ne suñu ay mbokk lañu suñu kër la ñu jóge suñuy mag lañu suñuy rakk lañu suñuy yaay lañu suñuy sët lañu suñuy doom lañu suñuy pàpp lañu suñuy yaay lañu muy benn ñaareel bi fii lañ fi def conférence de presse ñu yebal fi ay policiers ñu tas conférence de presse bi policier yi yi ñu yebal fii ngir ñu tas conférence de presse bi solu ñu woon benn masque masque yi ñu jëndoon pharmacie 1000 francs la pièce ñu jox leen ko ñoom ñépp day loon sax yemuñu ci loolu ñu cotiser suñu cotiser commissariat bi ñu jóge woon muy commissariat Grand Yoff ñu jox leen don de masque policier bu nekk ñu jox leen ñaari masque lavable yemuñu ci loolu démb ñoom ñii Fatima Mbengue jiite leen en tant que coordonnatrice ñu dem commissariat Thiaroye yóbbu fa tamit ay masque lavable cent masque lavable donte commissariat yi mooy commissariat bi tuur di liant Pape bi maas Pape Sarr bi taal Pape mu taal ko bu mu xëm mu xëm ba mu dee ñun ñoo dem démb commissariat bu yi may leen sans masque et incha allah campagne bi dina continuer donc c'est pour mu leer naññ ñun amuñu benn jafe-jafe ak les forces de défense et de sécurité nañu continuer di ñu jàpp nañu continuer di ñu dóor nañu continuer di ñu matraquer nañu continuer di ñu gazer yenn saa yi sax ñu ñuy saaga naan ñu ñi yéen ñu ñàkk jom ngeen au lieu ngeen dem liggéey ngeen di marche dina leen continuer défendre ndaxte ñoom amaguñu syndicat bokk na si sax ñun li ñuy porté mais am na takk der yoo xam ne jot na ñu am syndicat ndaxte dafa yomb trop ñu fay leen xaalis ñu leen di jox cent francs par jour 7500 francs donc loolu bëggoon naa ko wax mu leer ne amuñu benn jafe-jafe avec les forces de défense et de sécurité defe naa moo nekkoon laaju El Hadj Ndiaye xaw ma voilà beneen bi mooy nangoon fa woon rek fii la suñu mbokk Omar Watt ay militaires français door ko ba mu daanu dans le coma waaw ba tey jii nii mu ngi traîner les séquelles de la bastonnade ñan ñoo ko xeexal ñun ñii la le collectif ànd ak les familles des victimes xeexal ko ba ñu matraqué ñu gazé ñu dóor ñu buntu ambassade France gardé ñu à toute la journée ci commissariat central ñun la woon loolu la ñu def. mobilisation boobu pression yooyu moo tax benn ñu arrêté benn ci militaire français yi moo tax ñaar ñu àtte ci kanamu yoon militaire français boobu ñett moo tax biñ ko àttee ñu daan ko ñu ne ko yaa yoon ne yaatooñ benn ñaar yoon ne bi nga dàmp nangam ci xaalis ki nga xam ne moom mooy Omar Watt donc ça veut dire que suñu xeex am na njëriñ sa veut dire que toog ne tekk ne meng baaxul ni ko xale yi di waxee seule la lutte libère moo tax ma waxoon sànq na woon fa woon ni ñu def ci dossier Omar Watt noonu lañuy ñu nar a def ci dossier yépp ndaxte kat tey Elimane la suba Pape Saad la gannaaw suba sekk njaay la après Abdoulaye Timéra mais bu ñu moytuwul suba man la bu ñu moytuwul suba mas la bu ñu moytuwul suba Maguette la bu ñu moytuwul suba Fatima Mbengue la gis ngeen yenn saa ngeen di def seen liggéey ci ay manifestation ñu gazé leen ñu dóor leen ce n'est pas notre de c'est parce que état du Sénégal dafa ne pat ne tekk mooy li may wax permis de tuer or dafa war a leer on ne paie pas nos impôts pour nous faire tuer moo tax li maas feeñal ci film bi baa doole live smart dafa am solo donc loolu laa bëggoon wax maanaam xeex bi day daal di continuer ndaxte tant que dañoo jàpp ne tant que attewuñu policier yi fiir mbëkk rey Abdoulaye Timéra Abdoulaye Timéra yàlla na ko yàlla yërëm waaye fu mu tëdd suuf du sedd ci kaw tant que attewuñu juróomi policier yi rey Seck Ndiaye Seck Ndiaye fi mu toog yàlla na ko yàlla yërëm waaye la famille de Seck Ndiaye du ñu def le deuil de Seck Ndiaye tant que atte wuñu ñi rey Elimane ak Pape ñoom fu ñu tëdd yàlla na leen yàlla yërëm waaye seen am du mus a reposer en paix tant que la moo tax xeex bi day daal di continuer parce que nag li muy tekki mooy nous sommes tous en sursis waaw bu ñu seetaanee ñu def ko Assane Diouf ak lu ñu ti xalaat ci Assane Diouf dem fekk ko xaw ma 6 heures du matin wane woo carte fëgg loo ñuy wax nga tëb mur nga dajji bunt ak lu ñu munti xalaat ak ñàkk ànd ak Assane Diouf bu ñu seetaanee violence policière yooyu suba wallaahi man lañ koy def fàttaliku leen couvre-feu bi bi mu commencé. premier jour deuxième jour mu am ay violence policière ñenn ci ñu naan ñaw toog leen seen kër fu mu mujj fu mu mujj ñun ñépp ñu commencé noppi xam ne ah déedéet waruñu seetaan donte am na couvre-feu ak état d'urgence ñuy reetaan ñuy dóor di toroxal ay doomu Sénégal di leen di pompeloo ci mbedd bi ak ñoom seen donc waruñu banaliser violence policière c'est parce que dañuy banalise yuuxu yi ñun ñëpp sax yàkkamtiwuñu ut këyit gendarmerie ak police ndaxte da ngay dem ñu ne hey looy def fii te kenn bëggul nga yuuxu la c'est parce que dañoo banaliser loolu yuuxu yi jur ay saaga saaga yi jur ay dóor dóor yi jur ay bàkkan yu donc dañuy continuer dossier bi xeex bi li ñu mun wax rek mooy état bi nee na moo lànk moo bañ duma ma àtte état bi dafa ne maa lànk maa bañ duma ma àtte parce que bu ma àttewee sanctionné ay policiers ndaxte lii xaw ma naka laa koy yóbbee ci yoon te du ñu sanctionné ki mbëkk Abdoulaye Timéra te duñu ñu sanctionné policier yi rey Seck Ndiaye te duñu ñu sanctionné ñi rey Abdoulaye Timéra te du ñu euh, sanctionné ñi rey Pape te man mii nekk fii ah soxla naa ëllëg bu askan wi génnee policiers yi dóor askan bi te bu ma leen sanctionné policiers yi duñu mun def loolu xëy na ëllëg naa soxla def troisième candidature te soxla naa policiers yi waaw ku génn ñu dóor la waaye bu ma leen commencé yóbbu ci yoon ëllëg bu ma leen waxee tiiree wala matele du ñu tiire du ñu mate donc loolu lay tekki donc ñu ngi liggéey ak avocat des familles ñu ngi liggéey ak ku mel ni maître Assane Dioma Ndiaye d'accord mi nga xam ne saa su nekk dañuy wax dossier bu nekk fan la toll ñuy def revue des xam naa ne fan yii di ñëw ayubés yii di ñëw dinañ ñëwaat jàkkaarloog yéen gën leen leeral dossier bu nekk fi mu nekk ak plan d'action bi nga xam ne moom moo ciy topp ndaxte xeex bi du rekk wax conférence de presse ci la bokk wax ci la bokk waaye tamit bu ñu tàyyee bu ñu dammee ci wax ji te jurul dara ah na woon fa woon ba keroog ñuy jox dëgg ak justice Elimane Touré Seck Ndiaye Pape Sarr Abdoulaye Timéra ngeen jëf jàmm